ñuy dalal tey euh, Mamat Cissé euh, muy vice-président ASCOSEN euh, ASCOSEN di association des consommateurs du Sénégal ñu lay nuyu monsieur Cissé. maa ngi lay fay. di mbégte di waxtaan ak yow ci njëg yi nga xam ne yokku na tey ba jéggi dayo ci marché bi tey justement en tant que association de consuméristes jàngat gi nga ci def ak commentaire justement bi nga ciy def. jàngat mooy effectivement comme ni nga ko waxee. produit yi yëpp mun naa wax ne yokk na fu nekk ni ci marché mhm. yi war a yokk ak yi warul a yokk mhm. ndaxte boo xoolee tey jii fii ci Sénégal mhm. principe bi ñu am mooy que lu neex waay jaayee na l'essentiel na nekk produit bu licite concurrence bi moom la consommateur bi ci seet fa mu gën a baaxee ak fa mu gën a yombee mu daal di fajjante mhm. waaye loolu boo ko xoolee amul ba tax na état jël ci ay dooleem mhm. ne produit yi nga xam ne man nit ñu dañ koy gën a jëfandikoo mhm. man danaa ko fexe ba prix bi du yokk noonu d'accord bu ko defee ku nekk mos mu déparé ko waaye nag arrivé ko ndax lan ndax fa mu ko fixé woon mhm. comme ñun bu ñuy jëggaan yi presque lépp lu ñuy lekk dañ koy jëggaan yi mhm. foofa dafa chéré trop ndax dafa am environnement boo xam ne guerre Ukraine bi daf ci joué lu bari te lu bari di fa jógee mhm. moo tax yi nga xam ne moom la waxoon ne nañ ko ko jaayee mënatuñ ko ko jaayee waaye nag bu mu seetaat ndax def ci période boo xam ne ñu si bëri dañ ci profité pour yokk mm-hmm. yokk lu war a yokk ak yokk lu warul yokk te yokk bi tam dañ ko war a xoolaat parce que mënut a yokk Ukraine mm-hmm. wala Mali wala Indonésie bu fekkee ne dama jël diwlin bi mm-hmm. mu yokk fa de un franc nga ñëw yokk fii Sénégal trois francs loolu jàddu te mu nekk nii boo xoolee prix yi ni koy pro commerçant yu bëri dañ ciy profité ma investir ministre du commerce. mais mhm. na xool parce que ki nga xam ne dafa jëndee euh, un franc mu yokk un franc nañ ko yokk un franc. Mhm. waaye war yokk trois franc. d'accord. am nag produit yi nga xam ne fii la ñu ko béyee. Mhm. boobu moom dafay waar muy ak bu ma gisee soble si. ñu nga xam ne ñoo koy bay ne nañ suñ seen bopp parce que dafa bari trop te kenn mhm. ba ñoom ñu ngi koy tuur mhm. lu ñuy tuur nag mënuñ ko jëndee moins cher di ñu ko jaay au détail cinq cent francs le kilo pomme kii soble tey tey tey tey tey liberté six extension loo bëgg a wax foofu li may bëgg a wax foofu mooy mhm. boutique quartier yi jëndee fa baaxul te maa ngi invité ñaari nit muy ministère du commerce. Mm-hmm. na jël arrêté fixé marché bi nga xam ne moom la boutique détail war a jaayee soble ak pompiteer. kon ñoom ñoo sonal askan yi. ñoo sonal askan yi parce que li ñuy teg dafa jaaduwul ba ñuy profité rek ne lépp yokku ñu daal di yokk loo xam ne ba plus de deux cent francs diggante marché Thiaroye ak ak ak ak Liberté Six Extension. waaye état tamit moo ngi seetaan ndax tey jii doo ko ci dégg doo ko jox. moo moo tax ma ne ministère du commerce mu ngi seetaan. Mhm. moo tax ma profité si ni ma may ma wax ne nañu jël arrêté le rapidement parce que daf ko dafa dafa jaaduwul te fa ñu jëm. Mhm. la te nit ñi dañu soxla soble di soble mhm. soxla di wax aussi consommateur. ku ci am possibilité dem marché Thiaroye wala marché Gueule Tapée na ci bàyyi boutique bi nañ ne ñukk duñ gisul kenn ku jaay danañu wàcc sa prix bu ko defee ñu dem jënd prix boo ngi koy war sànq état dafay seetaan mais tey ndax yéen ñii di association de consuméristes yi nga xam ne euh, dëgg la askan bi ku ci nekk am nga sa ak ak sa yelleef ci wàllum consommation mais yéen tey ngeen di société civile bi nga xam ne loolu leen tax a jóg ndax tey ci seeni waxtaan ak seen jokkoo ak tutelle bi euh, di ngeen am ay information yu gën a large luy waral marché bi euh, loolaal gën naa yokk waaw tutelle bi mu ngi def cadre de concertation boo xam ne dañ ko tuddee comité de suivi bi mhm. altine bu jot dañuy toog ak ministère du commerce ak kàngamam yi ñu waxtaan ci prix nga xam ne moom moo nekk ci marché international ak yi nga xam ne moo nekk ci euh, euh, marché national mhm. ak commerçant yi maanaam acteurs yëpp dañuy fa mhm. daje problème bi nag mooy boo xoolee du tey mm-hmm. dafa am ñaar ñu mm-hmm. ak importateur bi nga xam ne moom huile de raffiné huile de raffiné bi lay indi di ko jaay contrat ak industriel bi nga xam ne dafay indi huile de mu raffiné ko soog ko jaay ñoom ñëpp dañ ne bu ma xoolee industriel bi mais mm-hmm. am na ay taxes yu ci teg taxes yooyu comme les droits d'assises nga xam ne douane moo koy collecté mais impôt moo ko moom de mm-hmm. dix pour def nañ sous comité sous comité bi mu ngi wéyal liggéeyam pour seet ni ñu koy dundee nga xam ne bu boobaa diwlin bi nga xam ne moom mooy huile bi mm-hmm. nga xam ne moom la industriel di raffiné nga xam ne moo yore léegi soixante pour cent di marché mm-hmm. bu boobaa ñu mën ko mën ñu ko wàññi di ñu ko jaay loolu ñu ngi invité ministre du commerce ak ministère des finances. Mhm. ñu taw ci liggéey. Mhm. parce que day jot jot. tey euh, duulin gi dëgg la yaa ngi koy wax dañ koy jéggaani andi ko moo ëpp ci li ñuy consommer justement mais tey Sonacos kon lu ñuy njëriñ. Sonacos wax na ne am na cent vingt neuf mille tonnes yoo xam ne collecté na ko muy graine d'arachide. en mhm. yooyu vingt neuf mille tonnes bi moom munu ko. transformé parce que am na fu mu ko dugal ba pare. Mhm. mais cent mille tonnes yi wax na ne dañu dinañ ko transformé jaay ko Sénégal cent mille tonnes boo ko xoolee mu ngi nekk trente mille tonnes d'huile mhm. boo xoolee dix huit mille tonnes presque la ñuy lekk wala quinze mille tonnes la ñuy lekk par mois. moom it mbaa du gën a cher sax. déedéet warul la gën a cher parce que marché international boo xoolee vingt vingt vingt vingt vingt vingt litres bi. mu nekk vingt huit mille boo mhm. xoolee presque huile d'arachide bi lii yooyu lay mën a nekk qualité boo ko xoolee ak cholestérol bi nga xam ne moom ngay gis ci yeneen unité doog gis ay d'arachide bi mhm. loolu tax na ba huile boobu wax dëgg yàlla moo gën mhm. donc ñu gënoon wax dëgg yàlla ne vingt neuf mille tonnes yooyu sax ñu wax ne dafa am fu mu dugg nañ jéem a seet ñu koy arrangé ba du dem transformé kàddu mhm. goo dégg euh, gi joxe euh, lan moo waral cherté gi da ngay dégg ñu naan la guerre en Ukraine wala Covid bi ndax ñoom ñaareek tax na ba euh, ni ñuy dundee jamono ji ñu agsi fii parce que kat comme ni nga ko waxee soble seeg pomme de terre gi moo ngi fii tey gerte gi am nañ ko yooyu yëpp tamit ndax du doon ay alibi yi nga xam ne dafa dafa dafa terre spéculation dafa am ndax munoo comprendre loo xam ne jëlee woo ko Ukraine mhm. Sénégal gii nga koy jëlee prix bi chaque jour chaque jour te boo xoolee stock bi nga xam ne moom la boutique bi am mun mhm. naa wax ne trois quatre jours ba une semaine mën na am lu yokk bu nekk mu yokk xaalis ci stock boobu mhm. loolu la ñuy spéculation lu ci bëri spéculation la waaye teguñ ko ci yoon mm-hmm. loolu nag ministre du commerce moo war a taxaw moo war a taxaw li nga xam ne ñu wan ko war a encadré comme soble comme pomme de terre bi ñu encadré ko mm-hmm. li nga xam ne le principe c'est la liberté ci ñu jéem a seet ndax concurrence mën na fi am il faut même qu'on change le circuit de distribution tu sais que amoon na temps Sonadis amoon mm-hmm. mais Sonadis booba ah. Mm-hmm. ñoom seen marché dañ ko daan respecté. d'accord. amoon na temps euh, CCBM am na am na luñ fi indi mm-hmm. booba centrale d'achat bu fort moo ko yàqoon mais buñ amoon centrale d'achat bu fort loolu loolu loolu loolu danañu si dimbale. Mm-hmm. dafa am loo xam ne buñ ñu bàyyee ñi nga xam ne ñoo fi nekk. ñooñu dañu rey ba ñu dee ndax ñoom lu leen neex def mhm. te principe bi comme ni ma ko waxee mooy la concurrence te concurrence amul Sénégal donc état dafa war a taxaw am circuit de distribution des coopérative yoo xam ne bu boobaa ñoom danañ mën a def seen marge mhm. marge bu jaadu te bañ def spéculation parce que askan wi sonn lañ mhm. maa ngi xalaat ne bu mois de juillet bii passé ba élection yi jàll comme moytu mën naa gën a métti. ah yaa ñu yaa ngi ñu tiital de yéen ñi waxtaan chaque jour ak ñoom euh, boo demee tey ba génne fi kàddu yi. Euh, amaan mais mais mais boo xoolee Côte d'Ivoire am na lu fa lu fa lu fa essence bi yokk na fa. ñun ba léegi sax ñu ngi koy sant yàlla. kon daal mën nañoo ne élection bee tax jamono ji ñu naj yu bëri fii. mën nañ koo jor mën nañ koo jor waaye nag bu ñu sañoon. la ñu njort du am état nekk toujours en train de protéger le consommateur parce que l'état a eu à, à, avoir des filets sociaux mm-hmm. quatre mille francs yooyu muy séddale mm-hmm. baax na trop ñu koy encouragé bu mu ko bàyyi mm-hmm. salaire yi mu yokk baax mais est-ce que préparé wuñu pour après juillet <laughs> c'est une question en tant que défenseur de consommateur dañuy alerter état aussi ne bu mu jaar ci yoon woowu ne après day bàyyi la vérité des prix la vérité des prix est insupportable pour les Sénégalais. ah waxoon na fi ça va yi donc du coup mën naa am euh, njot moom sax. mais il y toujours des outils yoo xam ne ñu ngi koy séntu ci état tey jii mën naa wax ne état. train de vie mm-hmm. mais dafa war a nekk royukaay. dëgg la. mënoo wax nit ki na souffrir na tànge te yow yaa koy tàngal. dëgg la. donc loolu yëpp ñu ngi leen di alerter ci loolu buñ fa toll. dañu def tout pour que pour consommateur yi nekk dans de bonnes conditions. Euh, ci benn simili rek euh, appel bi ngay def parce que wax nga ko sànq ñoo ngi jëm ci tabaski gi te euh, bu boobaa soxla si dina gën a yokku si askan wi dinañ soxla xaar soxla soble soxla pomme de terre ak yeneen mais tey ak dund góorgóorlu gi nga xam ne moo fi nekk ban appel ngay def. bon li may wax rek mooy que état na xam ne moom moo njobote ñëpp. Mhm. na fexe ba. bépp produit bu mu manqué. Mhm. waaye gannaaw bu mu amee na fexe ba ku nekk mos la mu war a mos. Mhm. képp koo xam ne dafa jàdd yoon na ko teg ci yoon waaye bala ngay mën a teg ci yoon nag da ngay teg ay charte yu leer. Mhm. réglementation bi nañ ko respecté en affichant les prix nañu jël arrêté encadré l'oignon et la pomme de terre au niveau du détail loolu daal vraiment ça me tenait à cœur. ñu j' espère ma dégg. yaa ñu yaakaar ne uh, dina tokk ci nopp bu baax bi uh, di la jaajëfal bu baax a baax sëñ bi ma Mamat Cissé ngay vice président ASCOSEN. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant ci opportunité bi ma may ba mu mun a wax ak Sénégalais yi.